mbokk internet M7 Actu dal leen ak jàmm ñoo ngi fii ci Baobab actuellement nga xam ne fii la Barthélémy Dias dëkk moom nag ginnaaw boo xamee ni démb la woon manifestation bi wala démb la woon jaamarloo yu métti amoon ci diggante force de l'ordre ak ñi nga xam ne mooy ñenn ci askan wi jaar nañ fële nga xam ne moo di këram wante dañ seetlu ni li di takk der yi ba tey ñu ngi foofu jógeeguñ fa ba tey ñu xool ci li nga xam ne moo di kër am ñoo xam dañ a baax ndax dafa nekk benn famille boo xam ñoom seen i matériel dafa daal di yàqu ci loolu nga xam ne amoon na ni ki démb ndax benn lacrymogène wala ay lacrymogène ñoo daal di tàbbi ci seen kër mu yàqu fa lu bëree bëri foofu la ñu a dugg waxtaan ak ki nga xam ni moo nekk ci famille boobu nga xam ne am na lu ko metti trop ba tax na sax kër gi ñun boo duggee da ngay sentir que ni lacrymogène dugg na fi ndax day xeeñ day métti sa bëcc day daal di commencé di jooy gis nga comme ni nga dafa diggu fii nii yàq na fi lu bëree bëri moom xam le que ni bagage yi nekkoon fii yëpp daf koy yàq ak gaz bi nekkoon fii xam ne risque bu rëy la doon teg dañu wax ak moom mu wax ñu démb ni mu dundee mbir mi ak lu li nga xam ne dal na ci kawam soxna si nuyu nañ la. fay naa leen grand. tur bi naka la. Fatou Thiaw. Fatou Thiaw bi aman dafa am lu la ndax gis nañ que ni lacrymogène dañoo tàbbi sa yàq fi lu bëree bëri bënn na sa tuwaa nekk démb nan nga dundee journée bi ak mbir mi nan la dikkee fii metti parce que lu nekk mënoon na ci xaj trois morts mënoon nañ fee nekk parce que maag sama ñaar rakk ñoo fi nekk mm. man wàcc naa te dugg naa fii laa toogoon sax yàlla moo def sutura parce que fii laa toogoon jékki saa rek ma dugg ci biir néeg bi ma tëdd ni ma tëddee nag nalaw naa sama frère bi moo fi desoon ci saal bi di seetaan bi ma déggee bëm tamit dama sama xel ci li mu njëkk a dem pour man gaz bi sax moo explosé ci kër gi ma ne sama frère bi lan la mu ne ma rakk majeur bi moo dugg si biir kër gi ma ne ko lan loolu mënatumaa gis moom mënul gis sama rakk bi mënul gis finalement ko tablier bi ma takkoon amoon na briquet ma ne ko mu dugg ci beneen néeg bi indi journal ñu taal journal bi ci biir néeg bi mais mënuñu gis parce que lu nekk mënoon na ci am te ñun yëguñu tiluñu ñu ñu daw ba dugg seen bunt ba tëj seen bunt nekk ci biir kër gi pour man ñu ngi ci sécurité dem ba tey mi ngi metti mënul dañ xet bi mënul dañ dem ba léegi nii lañ koy dundee te yow manifesté woo xeexoo defoo dara yaa ngi woon sa kër ñu ñëw yàqal la lu méttee métti nii waroon nañoo mën a dimbale parce que ñoom bu ñuy xeex war nañoo mën a xool ñan lañ koy sànni ak ñan la ñuy xeexal mais ñu nekk ci seen biir kër yëguñu tiluñu xamuñu lu xew génnuñu gi dafa tëju woon buntu kër gi bu tëjee ko loolu moo tax mu tëjee ko parce que nit ñi dañoo daw génn suñu dëkkandoo yi dañoo daw couper seen courant yaakaar ne tàkk-tàkk moo am fii te ñun ñi nekk ci biir kër gi sax xamuñu lu xew lu nekk mënoon na cee xam. wax tamit gaz daf fi nekkoon ci wet bi ci monté noonu tuwaar bi gaz bu bees mi ngi fi woon dama jënd gaz bi monté gu ma ko ma teg ko foofu. kon démb daal journée bi métti na trop ci. métti na trop métti na trop ñu ngi koy dund ba léegi ñu ngi koy dund métti bi ba léegi parce que affaire bi. dafa mel ni fenn sa kanam bi daf daf la jëlee kaw daf la jëlee kaw dafa mel. ba léegi affaire bi safut parce que day saf si kanam. waaw day saf man kay loolu maa koy confirmer ni may wax ak yow nii maa ngi koy sentir bu baax. ba léegi day saf munul dañ. léegi lan ngay sàkku ci ñoom ñu nga xam ne ñu ngi def mbir moomu te wax dëgg yàlla yow xeexoo xeexlu woo ci yaa ngi ciy gàllankooru. ñu dimbali ñu parce que loolu la ñuy wax ay di yem ci bopp boroomam bu xeex amee ni ni ma ko doon waxee démb yaakaar naa noonu la dalee suñu kaw parce que dama naan ñii di xeex souvent dara du leen dal ñi nga xamante ne seen yoon nekku ci ñoom la affaire bi di dal seen kaw mais pour man damaa yaakaar bu ñuy xeex ñuy xeexal la ñu war a mën a sànni mais këru baobab yu xat yi nga xamante ne seen couloir yi xat nañ kër yi ndaw nañ nga xool kër jàmbur ne ko fa tuy sànni ko leneen mënoon na ci am parce que affaire bi dafa jàpp ba jàpp cuisinière bi cuisinière bi cinq feuilles yëpp dafa teggee ko li ma lay wax nii billaahi wallahi man loolu pour man dama ko doon xal nit dama ko nettali du ma ko gis frigo bi jeu yëpp affaire yi yëpp ci suuf gis nga poussière bi yëpp ci toir bi la jógee. yaa ngi wax aussi yaa ngi wax aussi yëpp mhm. affaire yëpp dafa wàcc mhm. lépp a wàcc. d'accord yaa ngi wax aussi li nekkoon fii da nga ko sànni. li nekkoon fii yëpp a yàqu polum siiw buñ fa weeree sax amuñu ko gis nga bale yaa ngi nii li nekkoon ci cours bi yëpp la mokkal li nekkoon fii yëpp la mokkal. en fait euh, démb comme comme ni ma toogee toogee nii ci salle bi démb di seetaan tele mhm. action bi muy am noonu noonu noonu la demee. Mhm. parce que démb moom bi mu wàccee moom mu may naan sacré cœur tàng na. Mhm. ma ne ko de peut-être xam naa ne kon ñii de boo moytuwul li tax tegaguñ ko xam naa dañuy dañuy bàyyi ba nit ñi julli ba pare. mu fekk ma jàkkaarloog tele bi. moom noonu mu dugg ci biir man maa ngi jàkkaarloog télé bi di seetaan. en ci la affaire bi jékkee jékki. explosé ci cours bi man bi mu explosé sax man ma tiit jóg bi ma jógee noonu ak après ci la ma kii bi fekk si ci biir salle bi mënatumaa mënatumaa nooyi mënatumaa mënatumaa gis sama bët yëpp fees ak ndox ma fëgg ko mu ne ma dugal ci kii bi ci ci ci waañ bi nga indi vinaigre bi ma dem indi ko mu ne ma dugal ci beneen néeg bi nga indi kii bi nga indi journal bi bi ñu taalee journal bi nag boobu lañ mën a respirer ku ne ci ñun mën a kii nii ñu mën a gis ci lañ génn ñu gis fi affaire bi imaginer sama beneen sœur bi nga xamante ne moom moo toogoon ci bunt bi bu ko fekkoon bu ko fekkoon ci kori qu'est-ce qui allait se boo xoolee ñun ñun ñet ñëpp comme ni mu ko waxee ñun ñet ñëpp ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay moom mooy suñu mag imaginer loolu tey man bu ma fi nekkutoon ñoom ñoom ñaar kese buñ fi nekkoon tey kan moo nar kan mooy kan moo leen di indi journal bi pour ñu taal ko pour mën a nooy kon ñoom dañ meroon dee tubaab bi gis nañ que ni dafa bënn est-ce que kon du benn moo fi tàbbi wala ñaar wala ñett. non benn moo fi tàbbi en fait euh, dafa dal ci toit bi bi mu dalee ci toit bi mënu faa jaar ci la ci la wàcce wàcc foofu explosé foofu noonu foofu noonu ngeen gis noonu ci porte bi après bi mu explosé noonu nag ci la ci la kii bi du kii bi gaz bi noonu disparaît kii ni tasaare ci biir kër gi kenn suñu mënatul respirer kenn mënatul gis moroomam